ñi ngi ak uh, sëñ Abdou Khader uh, Ndiaye mi nga xam ne moom moo toog toogaayu sëriñ Daaru Assane uh, sëñ Abdou Khader yàlla def nga nekk ci bopp njaboot gi lan ngay wax taalibe yi nga xam ne ñi jamono ji yow yaa leen yilif ci kër sëñ Daaru Assane xanaa ñu doolee rafetal taalibe yi rek te sax am bu baax a baax ak ak baax a baax a baax parce que yéene doxal bu baax a baax a baax ci kat sëñ Daaru parce que yéene doxal baax a baax ci kat sëñ Fane nga xam ne suñu lu ko may njaboot bi man moom mi ndongi laa am njaboot bi loo nga samay rek laa am ak njaboot bi ñoom laa am ñoom laa safoo ñoom laa yëgoo boole ma ko mel leen nit nag lu may ak teel bi gu mat sëkk rek teel bi gu mat rek daal laa àndaale moom laa dañu xëcc ma dara ñeddi ma dara ama lu may soxla ak lu may baax lu may ñàkk bañ ba ak bi rek laa soxla lu am teel bi rek laa soxla lu teel bi soxlu woon ak teel bi dong laa soxla dong nag ak ak ak ndimbal ak ndimbal sëriñ bi ak lu may jàppale jàppale ma si njaboot gi teel yi ba dara xat bañ a damm si ñoom bi may jàmm salaam dong ak yiw loolu laa soxla teel bi ko moo mat sëkk sëkk sëkk sëkk ko ànd ak wér ko man loolu daal laay ñaan teel bi tey moom laay ñaan teel bi suuf moom laay ñaan teel bi suuf lii may yéene yi nga xam ne yàlla dogal na teg yàlla teg na fi may nangu naa ko te duma ko gàntu mu ko ndax def defu yàlla la mi def defu ko defu ma ko def defu yàlla la kon nag sant naa ci bu doon lu may def rek moom danaa xam ne neen lu ma koy lu ma lu may lu ma lu ma koy bàyyee nag du lu may dogal du lu may def léegi teg teg bu ma yàlla teg saa bokk ànd ko saa bokk saa bokk ànd jëg teg ma ko ñu ànd yàlla ñu teg ma ko muy jéem ko fas yéene yéen ngir jëm seen daaru ngir jëm ngir jëm njaboot gi mbooloo mi lépp rek ci kaw njaboot gi taalibe yi rek ci na ci laa ko yenoo yenoo gi de maa ngi ko am maa ngi ak lépp ci taalibe yi rek ak njaboot gi ak ak yaa ak yaakaar sëñ Tuubaa ak sëñ Modou Sa loolu rek moom mooy daal mooy saa yoo xam ne saa ëllëg bi ci des mooy mooy mooy sama bi mu am. doy loolu naa leen ñoom ñëpp sëñ Talla mii ne ci kër gi tey nga xam ne sama dinaa moo ci kër gi tey ak sëñ Muna ak ak sëñ rek ak sëñ Moussa Ndiaye sëñ Biré mi ngi xam moom laa def muy sama jëwriñ ci yoonu yoon sëñ Daaru mii sëñ Moussa laa def muy sama jëwriñ ci yoon sëñ Daaru moom laa jiital ba sëñ Mbàkke awa ne la ba soo toogee sëñ Mbàkke ma fépp doy na ci kanam njaboot gi yëpp fab sa yib rek jëm teg ko fi mu yor fépp bàyyi kër gi nam ko yore mu yore ko ne ne ten mu saa yoroon kër gi daal ñu ne ko ne yore sa yib rek jëm lam yoroon nam ko yore ne ne ko ne yore maa ngi seen ginnaaw lépp lu ñu ànd ak njaboot bi ànd ci daal lu lu mu bëgg ñu njaboot bi bëgg ñu bëgg ko daal ànd naa ci loola lu nekk njaboot bi nekk ci nekk naa ci loola lu ñëpp njaboot bi ñëpp ci ñëpp ma ca loola ci ndigal daal laay lay tënku tey ci lay tënku ëllëg képp ku ànd ci ndigal daal lay tënku tey ci lay tënku ëllëg gëm sëñ Modou Sarr rek te boole ñu ko nangu lenn fekk ci woon dara lu jëm ci lu jëm lu jëm ci lu ak teel bi nag xëccuwul lenn lu ci dem ci jàmm yàlla rek ak liggéey xëccuwul ci lenn lu may wii ci ndigal tey mooy nu mi yëpp la góor ak ma maa nga ndaw ñëpp laa maa sant sukk ma kenn miinu ma kenn diit ma kenn jàpp naa ñëpp ñëpp naa ñëpp am naa ñoom ñëpp yaakaar te doy loolu leen fépp nag ci kanam ak te ginnaaw fépp ndax sunu sunu luñ ma ci dara waaye may fës naa yéen du ma leen yàqal dara du ma seq ak ñoom dara loo xam ne si ñu sikki la tey mu lu ñu sikki ëllëg ñaanu ma yàlla loola dal ma ndax ndax dara àdduna jarul na ma maa nag maa nag ak taalibe mu di ko sikk baa ma di ko mere baa ma di di ko jépp ci daraam ñëpp ma caali kenn sikku ma kenn caali dépp ma kenn wutu fa dem fenn maa ngi maa ngi jàmm ak dem tool rek laa ne hmm. ci tool yi daal ci laa sax ci tool yi ci laa ne ba ma jógee daara ba léegi maa ngi ci àll bi ma suuf man tegoon daal ci àll ba ci laa ne bëgg si nii tey ma wax yow nii tey bëgg démb laa ñëw su démb ci suba sëñ Mbàkke wàccum liggéey hmm. dara neexuma loolu def da day def daf yàlla waaye su ma sañu sëñ Mbàkke dafay nekk lu wii di wii rek ndax noo bokkoon daara maa ngi moom muy mër sans bàyyi na bokkoon daara maa ngi moom. bu yàlla dogal ba muy yooyu ko ba sama mu yooyu ko delluwaat kër baayam ba ma ba ma ci gi. ñu ko dara man sama baay suñu saan ba ma ci daara ba fa ma baal trois sorong nga ma newoon ak deeru xulóom ci laa ne son hmm. si faal nekkoon ba ma ne fa ne fa te ba yàlla dogal ne ba sama borom dogal lii am. man del soit ci trois sur trois sur yii ji man Ndiaye mii ma bàyyi muy saa taw moom ma fi gën moom moom laa ci der xuus mu mu wër bu ko tagaat ko dëkk ba ci loxol man jaay man jaay yor dëkk booba muur itam ñaa ko bool ci dëkk ba la ma ànd la ma ko teg ci dëkk ba dama ko tege ngir diiri teg fa ngeen jàng alxuraan ak liggéey mu ak jaamu yàlla moom naa ko tege ci dëkk moom maa fa nekk itam. tey vraiment loolu la ko tegewaat jàppaat wax ci dëkk ba joxaat ko ma ndigal mm-hmm. ndigal loolu lépp sëñ Ibrahima jox ba mu yor jàkkee dëkk ba loolu ci sëñ Ibrahima sababoo ba ma yor dëkk ba diin jiite lépp mooy ko jiite ak lu fa dem mooy ko def sëñ Abdou Khadre est-ce que mën nañoo xam ñaata at nga am wala fan la say at toll sama fàttaliku ak sama xam-xam naa sëñ Moudou Sa daal moom daru ma ci ma am ma ci ma moom sax ma fekk baaxee daru may wax may jàng ci kër bi ma la seet moom tey laa yéen a wut maa xam nag samay at ni mu toll jéem ma ko liggéey jéem ma xam teel bi daal ci laa nekk faw dëkk moo dégg ma fenn man sama tànk bàyyi mu daan sama bàyyi fukki at ak juróom-ñaar yoo xam sama bàyyi laa ko mën ko su ma xañee damaa yalwaan su ma xëyee damaa yàlla jàll. soo ma tegoon nag di ma liggéey loo ba fii nii du banque te loolu laa nekk ba fawit nag sama ñaq laa fa siy dund ba fawit nag suuxu naa kenn lenn nooy jàmm salaam wutu ma fenn lenn lu may ak taalibe jàmm salaam ki ma ko taalibe laa ñëwee waaye képp ku ma ko taalibe moom xooluma la ñëwuma la féetuma ci yoon lenn sëriñ bi njaboot gi sëñ Ibra Faati Ndiaye nga ko dénk moom sëñ Abdourahim Ndiaye kàddug njaboot gi muy porte parole bi yaa ngi ko dénk sëñ Ibra jëmm comme ni nga xam ne ni la ko sa mag yi dénkee woon ba nëgën itam yaa ngi koy feddali ci moom waaye sa kàddug bopp moom yaa ngi ko dénk sëriñ Moustapha Ndiaye sëñ Moustapha Faati sëñ Moustapha Ndiaye mm-hmm. moom laa jox sama baat mooy moom laa moom laa mooy sama jëwriñ mm-hmm. sëñ Ibra jëmm mooy parce que bu kër bi luñ par wax loolu sëñ Ibra jëmm moo fu fu fu liiti jóge wala wax dëgg wala lu ñu dëgg sëñ bi jub moom nee na moo yor loola. nam ko yore woon ci jamono Sëñ Mbàkke si la ak ci jamono jam jamono yi Sëñ Mbàkke ba léegi dama ko feddil dama ko feddil na nekkaat ca lu mu nekkoon jiit na nekk ci kanam mbooloo mi lu ñu war a wax na koy wax lu ñu war lu ñu war a digle leen digle bu ñu war a yëpp bu ñu war a def ak bu ñu war a def tënk naa ko ci moom daal lépp lu xam mooy lu sëñ bi yëkkati ak lu ma xam ne na ko sëñ bi saawaxee ne sëñ bi jën yëkkati kàddoom bu dee lu ñu war a def na ci yëkkati kàddoom bu dee lu ñu war a euh, digle ak ndigal na ko wax baat bi daal yëpp mi ngi ci moom waaye nag baatu sama baatu baatu kër gi ci sëñ Moussa Ndiaye yi laa ko tënk ci laa ko teg. Hmm. mu nekk jëwriñ sama digg ak gone yi. Hmm. ak sama digg ak mbooloo mi. ñëpp doxaal yi mbool digg na ko mbool mi ànd na ko mbool mi dimbali na ko mbool te mbool mi ànd ànd nangul ko ko. ànd naa ca loola mu nekk leeral ma ne mbool mi nag tënk nañ ci wax ci nangam jëf nangam loola naa ci ànd ak mu mën de naa ci ànd. ci hmm. bu dee lu baax. d'accord lu lu baax lu baax lu ne lu ma ci ànd te lu ma ci àndal. dama ko dé ko dégle it na. Mhm. màggalug suñ daaru Assane mi ngi jub si mu nar a nekk màggal gu njëkk goo nar a màggal nan nga ko nar a màggale. xanaa li li li taalibe li lu seet ba dugal seet ba ba dugal ñoom rek ma ànd ci ak ñoom ci lu baax. Mhm. lépp lu taalibe na soxal muy soxla si daal. mooy sama soxla luñ seet ba ne ba ne daal ma xool ko tamit wóor na lu am lu baax la lu baax ci ñun ñëpp laa daan ci ànd ak moom mm-hmm. danaa ci ànd ak ñoom fu ñu ko jëmee rek danaa ci ànd lu wax danaa ci ànd wax daal du ma dégg seen wax du ma leen ni du ma sokkale ci dara li dara lu ñu def du ma leen ni mukk li ngeen def na ngeen ko war ko def mm-hmm. lépp luñ wax ko daal béy ba xam ne loolu mooy dañ lay daje ci man man dañ lay day waaye daje ci man dafa faa jël. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. waaw ah, baax na. jërëjëf loolu mooy sama kàddu moom. jërëjëf ndax ndax moom ndax moom ndax moom man man man mbooloo mooy sama lépp tey ak ëllëg mooy sama lépp tey ëllëg. wóoree mhm. ma ko lenn jëndi ma ko lenn dënd ma ko lenn. Mhm. sama lépp sëñ Modou Sam. est-ce que ginnaaw jaamu yàlla ak jëm tool liggéey daal sama yaakaar yëpp sëñ Modou Sam rek laa ko yaakaar ak mbooloo mi mbooloo mi ci ko dama leen la jàpp nag saa saa biir pal jàpp mun sama cati baaraam. est-ce que. dama leen jàpp saa biir benn sama rakk yi nga am ak taalibe yi nga xam ñu ñu ñu ñu ñu di bokk di bokk kenn bëgg ànd mu bëgg ànd jaamu liggéey sëñ Tuubaa sëñ Daaru lépp lu ñu nekk rek nekk naa ci lu ñu nekkul nekkuma ci. Mhm. képp ku leen tooñ tooñ nga ma koy wax loolu naqari naqari ma naqaroo. Mhm. waaw bëgg mu koy tooñ bëgg mu koy wax ndax bu def ci loo xam lu gënul la nan na ko yàlla maa sa jàmm yàlla te gëm yàlla te jàppalante fonklante te te bëgglante te yéenante jàmm est-ce que loolu daal mooy sama mooy sama wax tey mooy sama wax ëllëg mooy wax yéen sant naa ñëpp tey ak ëllëg saa yëg baat yi doon say tuwaat tey ñaan tam yàlla defal ndimbal ñun ñëpp saa yëg baat yi kat mu du saa baat bi